journalistes yi ak professionnels de la presse en général ngir waxtaanee innovation yu bees yi nga xamante ni coppite yu bees yi nga xamante ni ñëw na ci norme ITIE bi nga xamante ni 2023 ci conférence mondiale ITIE bi amoon fii Sénégal si la ñu ko si la ñu dugaloon coppite yooyu donc il était important dafay jaadu que ñu permettre journalistes yi ñu xam yan coppite moo ñëw si norme ITIE bi ba pare tamit ñu dooleel leen ngir ñu mën a maîtriser. Euh, projet yu bees yi nga xamante ni moom la état du Sénégal di tëral ci wàllu pétrole gaz ak mine ñu xam yan innovation lañ ci def ak euh, yan investissement yu bees moo ci am ak fan la projet yi toll euh, yu am retard lu tax ñu am retard lan la état di def pour mën a combler retard yooyu noonu ak lan la ci askan wi mën a xaar en termes de retombées positives pour ñoŋal seen dund.